APR yeesal nekk itam directeur général bu Sonacos Modou Diagne Fada moo dund yi la élection ñett yi mu nekkoon ci wetu président Abdoulaye Wade benn bu mujj bi di bu 2019 fekk ko mu Moubert Daram ci ñaareelu xaaju émission bi dinañu wax ci politique ak euh, université yu Sénégal ndax euh, fan yi ñu génn coow amoon na fi ginnaaw bi Ousmane Sonko demee ca UCAD étudiant yu bari amoon ci benn taxawaay boo xam ni taxoon na ñu bari itam euh, samp ay laaj jëmee ci ndax politique mën naa ànd akum njàng loola danañu ci waxtaan ak moom ndax yëngu na ci wàllu politique ba mu nekkee ca université bu Ndakaaru Modou Diagne Fada ñu ngi lay nuyu am dala dalalaat la ci Rewmi FM rawatina ak tey muy gulet ñu ciy sekk waxtaan ak yow. waaw démb ak tey muy muy gulet. Euh, ma lay nuyu. di nuyu euh, auditeurs u Rewmi FM yëpp. di am ak bànneex di waxtaan ak euh, waxtaanaat ak yow. tey nag ci beneen anam. muy démb ak tey. bi ñu ne maa démb ak tey nag ma ne waa man lu ma booleeg waa démb. <laughs> mais nag c'est normal parce que ku def lu jege fanweeri at ak juróom ci politique. yaa ngi bëgg a yàgg ci activité boobu. démb ji nag taxu ko sori lool ndax 2000 la ñu koy tàmbalee bu baat léegi ñaar fukki at ak benn la def 2000 euh, euh, muy euh, première alternance ci Sénégal président Abdoulaye Wade janoo woon ak Abdou Diouf yóbbu ko deuxième tour ñaareelu tour ba mu am ndimbal tax ko doon président waaye naka ngeen dundee wàccaayu élection 2000 ginnaaw xeex bu yàgg boo xamante ni président wadd xeex na ko nekkoon ci opposition bi xëy na ngeen nekkoon xale waaye 2000 tàmbali ngeen a gimmi xëy na ba jàpp ci xeex bi naka ngeen dundee wàccaay yi ak boobu les élections waaw 2000 euh, euh, nga wax léegi ne mooy première alternance euh, de ci yokk première alternance démocratique hmm. parce qu'en vérité Sénégal 1960 la am indépendance ak article 35 président Senghor transféré na nguur gi président Abdou Diouf mu continuer mandam ba élection 83 yi mu présenté waat soo soog ñu soog ko fal officiellement. alors 2000 nag mooy effectivement at mi nga xam ne euh, ak ay élections président nekk na fi ñaar fukki at euh, nit euh, opposé ko lu mat ñaar fukki at ak juróom-benn ñëw ñu wote ba ngoon jot mu gañe te bi mu gañee ki nga xam ne moom la uutu nangu ko woo ko téléphone ndokkeel ko nekk lu nga xam ne ci jamono jooju. Euh, ñëpp dañ ko doon euh, bàkkee Sénégal bon loolu nag xëyul rek am dafa am lu nga xam ne moo ko jiitu xaj na man fi ma ci commencé fàttali ko rek mooy 88 lay tàmbale parce que 87 88 87 la am baccalauréat 87 88 euh, bi ma ñëwee université Cheikh Anta Diop de Dakar octobre no octobre novembre 87 déjà février. 88 février yàgg na élection présidentielle yàgg na am février <laughs> février 88 euh, ca loolu rëy xëy woon euh, dañu yeewu genn fajar rek euh, ñu ne tëj nañu université bi ndax li tax ñu tëj ko mooy université Cheikh Anta Diop dafa nekkoon foyer foyer de tension ndax presque li ñu ëppoon ci étudiants yi euh, mën naa wax ne dañ doon aspirer à l'alternance dañu bëggoon nguur gi soppeeku moo tax gouvernement bi fi nekkoon ba ñu watee ba ca suba ga rek mu anticiper ne tëj nañu université yi daal di def déclaration ci rajo bi ne ku nga xam ne bëgg nga sa doom jël si ko ndeysaan ñun ñi ñëpp ñu ci bari seeni parent jóge ca euh, gox goxaan yi ñëw di leen jël si ñu yenu seeni kaakee seen i saak di génn di génn université li ko jiitu nag dafa woon événement bu tragique bu fa amoon parce que dafa am benn ci xeex bu doon xeex parce que xam nga 88 aussi mooy année blanche bi euh, xeex bu doon xeex ba benn étudiant daanoo ci pavillon A ñu naan dee nag deewul ñu tegati ca noonu bagaar am diggante benn professeur ak benn étudiant bu ñuy wax mbaj ndeysaan jamono jooju doyen Ibrahima fal mu nekkoon ministre de l'enseignement supérieur xam nga ci wolof yu neex yi mhm. ah, su ak wolof yu yu yu jaar yoon yi su daan wax euh, ñi dégg wolof dañ ci kontaan lool ñi ko déggul nag dañ leen euh, dañ ci doon reetaan mais eh, wolof yu yu wér la daan wax alors bref donc 88 mu demee ni mu demee euh, bañ ci jógee rek ñu jàpp Ablaye Wade parce que foofu la président Abdou juf def woon je crois erreur de communication bi gën a mag ci la dem woon Thiès Thiès est une ville très bouillante dëkk bu nga xam ne PDS dafa samp woon ci la jële woon lors de la campagne mu ne euh, cette jeunesse malsaine xëy na booba yéen tout tànk ngeen mais ñun ñi nga xam dañu nekkoon ndaw euh, loolu ça nous bokk bokk bokk beaucoup beaucoup frustré. ñu gis ci seen bopp. ñu gis seen bopp foofu aussi la waxoon ca Thiès ne Abdoulaye Wade euh, jete à l'œil donc tout le monde savait bu ñuy paree élection yi mu koy jàpp ba ñu paree ci guddi ga dimanche ci guddi may ñu ko mu farande lañ ko jël si xam nga loolu bu doon jamono ji moom musiba musiba mu dem prison euh, nekk ca ñun tamit ñi nga xam ne ñun ñoo doon xale yi nekkoon ci si mbedd yi ñun tamit ñu daal di jóg taxaw tem euh, mener la lutte guérilla urbaine euh, vraiment téye ndakaaru poñe ndakaaru waaw poñe ndakaaru ci ak axe bu nga xam ne dañu fa doon jaar ñu poñe ko chaque matin mobilisation te du te du faiblir bis bu nekk nit ñi di gën a bari. boobaa na takk der yi. takk der yaa ngi mais mënuñu woon dara. parce que c'était une c'était une affaire du peuple. c'était une affaire du peuple ñëpp doon jóg ñëpp doon wax ca lañ nekk Ablaye Wade nekk prison nekk prison et finalement booba ñun suñu classe gi ay 18 ans 19 ans la ñu am donc mu voté wuñu woon ci élection présidentielle bi parce que booba ngir nga bokk ci élection présidentielle dangay ngay am 21 ans pour vous dire rek gars yi léeg-léeg bu ñuy wax euh, xeex jàpp ne xeexu politique léegi la tàmbali ba mu tàmbali ak ñun ñoo xeex suñu gen ñoo xeex ba euh, âge électoral bi ñu indi ko 18 ans ñun ñoo xeex ba isoloir di am bu njëkk bajo fang daran wote da ngay ñëw rek ci pénc mi bu njëkk carte d'identité daan wote donc yu baree bari suñu jeune ñoo xeex ba jëmbat euh, démocratie ci ci ci ci réew bi alors donc 88 mu tàng lool ñu tëj Ablaye Wade euh, ñu nekkal ko ca nekkal ko ca nekkal ko ca alors bi gars yi sonne ñu xam ne waxtaan ak Ablaye Wade ñoo fi sës booba nag lañ daan wax naan waxtaanu guddi yi Euh, léeg-léeg ñu kaala Ablaye Wade mu dem Palais toog waxtaan ak euh, ñoom Jean Collin ñuy waxtaan waxtaan waxtaan ba tënk dara ñu génne Ablaye Wade ba mu génnee bañ ko laajee daf ne ñu nag Abdou Diouf waxtaan nañu war a organiser une table ronde avec Grand T. cest table ronde grand T table ronde bu nga xam table ronde bu bag la ñu ne ko table ronde mu ne mu ne une c'est c'est sa formule. une table ronde <laughs> avec grand T. ñu toog euh, donc ca table ronde ba. waxtaan waxtaan waxtaan table ronde boobu moo jur en 91 le code consensuel de 91. kooku nag c'est important. code Kéba Mbaye. code Kéba Mbaye. grâce à la commission cellulaire dirigée par monsieur Kéba Mbaye. code électoral boobu nag pour man moom moo samp. les conditions d'une alternance démocratique en 2000 même bu fekkente ne élection présidentielle 93 jaar na fi président Abdou Diouf gagné ko jàpp naa ne man foofu la réforme majeure yi commencé déparé pour ñu mën a jot ci réew mi en 2000 ndax 93 moo doon essayage bi ñu essayé gis progression tant du point du nombre de députés que du score obtenu par le principal opposant de l'époque à savoir le président Abdoulaye Abdoulaye Wade alors donc en 93 ñu dem euh, gars yi waxtaanaat fekk lu ko jiitu tamit amoon na gouvernement premier gouvernement majorité présidentielle élargie entre 91 ba 93 après en 94 deuxième gouvernement de majorité présidentielle élargie man boobu maa ngi woon ci cabinet président Abdoulaye Wade comme son attaché de cabinet dans cette deuxième participation 94 donc ñu dem Euh, quatre-vingt euh, nekk ci ba quatre-vingt-dix-sept élection législative yu jub si mu ne day génn tout comme ni mu njëkkoon def ci bi mu njëkkee bokk en quatre-vingt-onze bi quatre-vingt-treize jub aussi daf ne day génn bi mu dugaatee quatre-vingt-quatorze aussi bi quatre vingt dix jotee daf ne day génn dem ci élection législative yi mais bi mu demee élection législative bi ñu paree nag nu nekk Diouf def na ko pour mu duggaat mu téye boppam. di waajal 2000 di waajal 2000 France comme ni mu daan def. di fa waaj di fa waaj di fa waaj wadd dina ñëw wadd du ñëw wadd dafa sonn wadd dafa découragé am ay mbokkam yu ko jege naan ko nag président léegi yëf yi yëf yi doy na. léegi opposé wu na lu yàgg. lu yàgg waaw mu ñu ne ko nag léegi mag nga 72 euh, ans bu fi nekk ci ji xëccoo doy na bon je ba amoon doy na xaw a jaxase xelam. Mm. mais nag à l'époque opposition Sénégal bi fi nekkoon ci moom lañ yaakaaroon. Mm-hmm. ñoom Dansokho. ñoom Dansokho Bathily. Euh, Idrissa Seck mi ak ñeneen ak ñeneen formé daal Landing Savané def seen délégation dem France fekk fa ne ko noonu ñàkk bañ a ñëw bon wax ba convaincre ko mu leen d' accord alors maintenant le grand retour nag c' était en 99. 99 bi mu jëlee vol privé wàcc aéroport Senghor am ndiiraan topp. Ndiiraan depuis l'aéroport jusqu'à la permanence nationale du PDS booba permanence nationale du PDS mu ngi fii ci euh, face obélisque foofu la ko nit ñi terto terto bu rëy la fa génnoon ci kenn xamul booba nag la ñëpp jël conscience de mille moom Abdou Diouf day wàcc parce que li génnoon ci mbooloo kenn mësul gis mbooloo mu tol noonu topp benn nit il représentait l'espoir euh, des des Sénégalais bi mu ñëwee foofu euh, mu nekkoon accueil bu mag isaan du grand discours Boubacar Sall Omar Lamine Badji Moussa Diédhiou y a eu vraiment euh, de de grands ténors euh, du du parti qui avaient pris la parole pour euh, haranguer les les foules nous étions tout jeunes tout excités et pour ñun loolu moo déclic bi nga xam ne moom moo indi moom moo indi 2000 bon mu dem ci. li nga ci xam xew-xew boobu lan la defoon ci pouvoir bi. alors bon cest à diir wàdd da doon ñëw je crois que le pouvoir a été surpris parce que xalaatul woon ne nit ñu toll noonu dinañ ko dinañ ko duñ génn parce que bu ñu ko xamoon soit que daañ am yeneen galgal yu ñu yu ñu dugal mm. mais bon dañu jàppoon ne Wade gars yi eh, xaj na euh, sàppi na leen wala boog Wade moom du moo ko moo mën a sonal si président Abdou juuf euh, d'ailleurs loolu moo tax Diouf était sûr d'être réélu moo tax benn détail bu ñuy wax ni limitation la durée du mandat ak limitation du nombre de mandats bi ñu waxtaanee ci bu njëkk boobu bi ma wax léegi commission cellulaire dañu def deux mandats kenn mënul romb deux mandats te mandat yi mandat sept lay nekk moo tax ñu def 93 2000 bi ñu jubee 2000 mu def révision constitution il a fait sauter le verrou de la limitation des mandats. Mmh, yaakaaroon ne day faluwaat. dafa yaakaaroon ne day faluwaat dafa yaakaaroon ñam na benn bii day jamaat bu ko defee mën a ñamaat alors far nag euh, mu enlever verrou bi dindi limitation nombre de mandats ñu dem élection présidentielle mu ñàkk moo tax président Wade bi mu ñëwee. mu delloowaat limitation nombre de mandat à deux ba pare wàññiwaat durée mandat sof ko moom sept ans la ko lañu ko faloon lañ lañ la ñu ko faloon mu nekk fi entre 2000 ba euh, mm-hmm. ci tënk élection boobu Abdoulaye Wade mi ngi am au premier tour 31 pour cent Abdou Diouf am 41 pour cent Moustapha Niass mi leen départagé mi ngi amoon bi ñu ca noppee Abdoulaye Wade euh, gannaaw jàppale gi euh, mu mujjee am 58 virgule 49 pour cent alors ñu ñëw ci élection 2007 boobu moom. déggoo nañu alors bala ngay àgg am na ñaari fait aussi parce que à part marche boobu nga xam ne. marche populaire la euh, mën nañ ko tudde noonu ñëpp gis loolu itam dafa def effet ci parti socialiste c'est-à-dire que loolu pour man moo moo moo xaw a tasaare tasaarewaat parti socialiste parce que jibokaa génnoon na déjà en 96 Moustapha Niass 99 boobu la génn def son appel au mois de juin donc alors fait yooyu yëpp combiné nag ben tax na ba président Diouf s'est retrouvé officiellement avec 41 pour cent et que euh, donc Wade euh, d'ailleurs euh, président Diouf bi mu demee deuxième tour xamoon na ne gasi waaye xamoon na ne xamoon na ne xamoon na ne gasi alors ñu ñëw ci 2007 euh, booba dégg nañu ne sax ay jinne ñoo wote ndax réélection bii ni mu demee woon yëf yi ñëw rek euh, gaaw macha allah leer euh, naka ngeen dundee aussi boobu élection. alors boobu élection man cas particulier laa ci. parce que li tax ma nekk ci cas particulier donc 2000 bi ñu ñëwee ànd ak président Abdoulaye Wade fekk lu ko jiitu maa ngi woon assemblée nationale en 98 ak ak 2000 98 j'étais deuxième sur la liste national du PDS. dugg assemblée nationale 98 98 99 j'étais député simple 99 2000 j'étais membre du bureau de l'assemblée nationale euh, nekk secrétaire élu donc membre du bureau de l'assemblée nationale donc foofu laa jógee nekk ministre de la jeunesse euh, de 2000 à 2002 euh, ensuite non de 2000 à 2001 de 2001 à 2002 ma ministre de la jeunesse et de l'environnement et ensuite à partir de 2002 ma nekk ministre de l'environnement et de la protection de la nature ba 2004 ma génn ci gouvernement bi no ba 2007 ba 2004 Idrissa Seck nekkatul premier ministre vous rappelez bien de la phase de ce qu'on appelait la déséquisation euh, ce qui était estampillé ami de Idrissa Seck était plus ou moins euh, dañ leen doon gomé euh, mais man comme dama xawoon nekk un peu un enfant du parti euh, ñu bàyyee demee fii damay résumer hmm. ba 2005 2005 ñu génne ma ci ci ci gouvernement bi euh, génne ma aussi ci fonction yi nga xam ne moom laa amoon ci biir parti bi ak ci biir Daaru Musi ak ci biir Kébémer euh, xam nga rek Baye Ablaye moom te buy xeex <laughs> euh, du du xam a taxaw xamul demi mesure xamul demi mesure alors 2007 jot lu ko jiitu man ak ñi ma àndaloon ñun dañ def waar wi mm-hmm. dem élection législative. napp seen natt suñu bopp waaye ne dañu waxoon ne bu ñu defee waar wi aussi élection législative élection présidentielle président Ablaye Wade la ñuy jàppale. ñu ko waxoon ba mu nga dem waaye bàyyi fi tànk. waaw xam nga waar wi la ñu wax. man doon pour génn parti bi. doon pour génn PDS mais comme jamono jooju ñu ngi ma fay bunduxataal te élection législative am na te nit ki politiquement bu ko il faut mu exister. loolu moo taxoon ma samp sama waar c'est du parti politique d'ailleurs coalition électorale la woon pour dem. ci élection yooyu. da pour dëggal sa légitimité. dem dëggal sama légitimité dem xool aussi bon ba ma ma dalee dégg ci réew mi ba ah, léegi. lu ma fi xaw a tekki. Hmm. alors ma dem donc ci élection élection yooyu. au départ président Wade dafa dafay couplé. élection législative ak. présidentielle ñun li ñu commencé woon wax suñu nit ñi mooy élection législative woteel leen ñu mais élection présidentielle woteel leen euh, président Abdoulaye Wade. mais boobu nag mouvement waar wi bi mu déparé dafa xawoon euh, bari doolee trop gars yi dama ne non couple bi daal wóor nañ découpler c' était pour wax xool ba xam est ce que ñun suñu engagement bi c' était sincère wala c' était pas sincère nañu découpler njëkkee élection présidentielle après ñu def élection législative bon nous on a tenu parole élection présidentielle ñu jàppale président Abdoulaye Wade mu jàll alors euh, jàll bi nag euh, comme ni nga ko waxee Euh, am na observateur yu mu bettoon parce que boobu boo doon déglu rajo yi ak télé yi danga naan président Wade day ñàkk élection 2007 mais booba nag bon presse bi bindoo woon noonu mm. mais sénégalais ci boppam liñ doon gën a wax mooy bàyyi leen góor gi mu eggale. ndax boobu yi bëri na gas nañu réew mi yëpp. ma ngoog bàyyi leen góor gi mu eggale moom moo gënoon siiw mais journaliste yi la ñoom lañ doon wax rek mooy. yenn journaliste yi. waa yenn journaliste yi <laughs> d' accord une partie de la presse. comme da ngay défendre sa sa mbokk yi. <laughs> non du ñëpp. <laughs> waa yenn journaliste li ñu mooy góor gi moom deuxième tour cest à deuxième tour sax du qualifié loolu la ñu doon wax li tax mu bett leen mooy loolu deuxième tour sax du qualifié c' était vraiment l' analyse la plus répandue chroniqueurs yi moom la ñu doon wax analyste politique di ko wax yenn journaliste di ko wax mais nit ñi moom. boo duggee ci bëccëg li ñuy wax naan bàyyi leen góor gi mu yeggale. yéen ñi biir lu ngeen gëmoon. bàyyi leen góor gi mu yeggale. da ngeen gëmoon ngeen ni day day faluwaat gëmoon ko gëmoon nañu ko ne day amaat parce que li tax ñu gëm ko mooy ko ñun dañ doon dem si nit ñi quand même dañ doon dem si nit ñi dañ doon dem si population yi xamoon nañ li nekk seen seen bopp alors donc 2007 challenger am principal c'était Idrissa Seck. dafa nekkoon tam ci contexte bu particulier Idrissa Seck. Euh, moo ñëwoon en deuxième position. alors euh, li tax mu ñëwoon en deuxième position aussi pour man mooy rek li xaw a may chance président Macky Sall en 2012 xañ na daan ci ñëwaat mooy nit ñi gëm nañ Ablaye Wade bëgg nañ Ablaye Wade mais am na lu leen gêné ci Wade xañ na magaay gi xañ na bëgg doom gi ak et cetera et ba tax ñu ne Idrissa Seck mi daal nampatal nañ ko wala namp na ci mbiri Abdoulaye Wade politique Ablaye Wade vision Ablaye Wade xam naa ne ku ko jox réew mi du ñàkk dana def comme Wade te moo gën a ndaw. waaw boobu tam nit ñi xawoon nañ ko yërëm ndax mi ngi génn ci jafe-jafe yi chantier Thiès yi. waaw génn ci kaso victimisation bi. loolu tamit am na ci dañoo mën a sot. waaw na ci bon maintenant dem nañu élection bon xam nga yi tamit ndaanaan la euh, yàqal na président Idrissa Seck parce que woo na ko palais bëccëg <laughs> woowaat ko mu dem mu ñëwaat bon gars ni keeg Wade daal. kiif kiif kon au ñu. bala ngay jël bala ngay jël photocopie na nga jël original voilà kay <laughs> waaw noonu lañ ko noonu lañ ko doxalee. kon loolaa indi 55 virgule 90 pour cent voilà vraiment mu jàll jàll bu bu rafet. mais loo loolu nag léegi nag oppo ñu fi nekkoon opposition traditionnelle euh, ñoom Tanor euh, na ko yàlla yërëm ak ñoom Moustapha Niass ñu daal leen di relégué ñu am ay 9 pour cent ay 10 pour cent sa Seck mi soog a ñëw am 14 et quelques euh, pour cent. bon gars yi nag léegi moo indi boycottu. élection législative yi ci taw loolu moo tax ñu opposition ba ci àggee ci législative 2007 ya ñu di ci bokk. ñu gedd ñoom ñu gedd ah bañ gedde nag ñun waa waar wi dañoo roof ba ñu roofoo nag ci lañ amee suñu ñetti député ak près de cinq pour cent à près de 85 000 voix. ñëw deuxième derrière la coalition Sopi avec euh, And Jëf euh, PADS ak euh, beneen parti boobu est-ce que du ak URD yaakaar naa ak ñoom député Khassimou Dia. ak euh, Touré le ministre Touré et cetera d'ailleurs après man ak ñooñu sama ñetti député ñetti député euh, Landing ñaari député ñooñu ak benn député ak ñeneen ñoo formé booba groupe parlementaire euh, liberté et démocratie bii actuellement liberté et démocratie dugg mais booba yi tamit liberté et démocratie dugg tur boobu moo ko wutoon ah. liberté et démocratie ensuite 2012 ñu formé le groupe libéral et et, et démocratique mais 2012 boobu tamit biir euh, biir PDS la woon. Mhm. alors ñu ñëw ci élection bi nga xamee ni nag ci la président Abdoulaye Wade di ñàkk ndax seenu woon ngeen ne da ngeen di daanu. alors euh, élection 2012. parce que parce que parce que témoin bi moom dafay wax dafay pa dafay dafay déparé ci moom donc élection wax naa léegi élection 2007 bi ma bi ñëwee assemblée am ñetti député góorgóorlu ba yore fa suñu groupe parlementaire bokkaat ci par nos propres moyens bokkaat ci bureau assemblée nationale ba dañu passé élection yi rek waxtaan commencé am comme ni mu amee ci politique rek waxtaanu biir nekk waxtaanu guddi pour seet nag léegi yow noo war a jubóog sa baay waaw comme da nga doon wane sa bopp léegi wane nga sa bopp léegi war a jubóog sa baay alors ci diggante boobu nag proposition yu bari ay ndaw président Wade euh, doon na ñëw di ma ko def waaw kaay yow kaay nga kaay ñu def la ministre conseiller ma leen déet man président groupe parlementaire kay lu may doy ministre conseiller bàyyi leen moom ma des fi nga xam ne moom leer na ma ne juróomi at yi moom su ma deewul mën naa faa nekk. kaay ñu def la ministre chargé des Sénégalais de l' extérieur ma leen non ministère des Sénégalais de l' moom jàpp naa ne ëpp naa ko. mbiri Ablaye Wade daal su ma ci dee dugaat ci digg bi rek ci xol bi lay lay laay dugaate donc alors ci lañ nekk 2007 ba 2009. ñoo ngi ci waxtaan yi. ñu ngi ci waxtaan yi 2007 mu demee noonu donc wax naa la léegi 2007 non bañ bañ paree élection législative yi 2008 ma jógee présidence groupe parlementaire nekk troisième vice président assemblée nationale ba 2009 alors en 2009 ci laa dellusiwaat ci gouvernement bi comme ministre de la santé et de la prévention donc décembre 2009 ci laa nekk ci laa nekk ba. yàlla dogal nguuru président Ablaye Wade euh, jeex donc entre temps on a organisé les élections l'élection présidentielle de 2000 2009 au départ pour dire vrai euh, on ne pensait pas à la défaite c'est-à-dire que euh, après sa réélection en 2007 2008 2009 on ne pouvait pas penser à la défaite mais fi xel yi commencé ñaawee mooy bi président Macky Sall génnee président Macky Sall génn di dox doxu suuf. c'est-à-dire. Ah, mais di dem ci dëkk dëkkaan yi te kenn kenn yëgu ko dëkk bu nekk mu dem fa dëkk bu nekk mu dem fa dëkk bu nekk mu dem fa léeg-léeg ñu tasal ñu ah waa jaa ngi dox de bu ñu ko waxee rek président waat ne bu waaj kooku buy dox lu muy am léeg gaa yi ko ah mu ngi dox rek de mu ngi maaye de <laughs> mu ne waa mais du bon du am dara ndekete yow. Hmm. bët li koy fatt du mu ñëwee fii jàmmalaay xaw ma lan def méga meeting am boobu ah, xel yi commencé commencé bi aussi euh, coow li bari lool ci Karim Wade loolu yi tamit gënu yàqal. ak ñetteelu mandat bi. ñetteel bi muy affaire mandat beeg révision constition bi bëgg indiwaat le quart bloquant. ba indi 23 juin alors événement yooyu bi mu paree ñi nga xam ne vraiment euh, xam nañu tuuti politique nee nañ mbir mi dina jafe dina jafe lool parce que bu doon rek opposition traditionnelle ay parti social ay AFP du am problème waaye ci biir gars yi am na ci doomu Ablaye bu ci nekk muy président Macky Sall te li ma waxoon léegi ne critère la ba am solo euh, instant boobu ñi nga xam ne dañu doon Ablaye Wade dara du woon liggéeyam du woon bilan parce que def na bilan def na réalisation. bilan am faloon na ko. bilan am faloon na ko waaye nag dafa may gàkk-gàkk yi mooy bëgg doom gi ba ñu bari jàpp ne buñ ko fi tegaatee doom ji lañ fi teg ndax dana def tout pour que doom ji toog toogaayu place am loolu yàqal nañu lu bari bari te loolu dama lañu instant bu nga ne mënatuñu ko woon a dindi am na ñu doon mën son toog réunion nii réunion am ñu nga xam ne dañu jël seen responsabilité ne président Wade kii da ko war a dindi. soril ko soril ko sa bopp mais am na ñeneen ñu wax aussi ne kii même bu ñu ko dindi woon tey yóbbu ko ba Australie du tee le mal est déjà fait du tee que dañuy wax dañ ko làqe rek waaye moom la ñuy wutal wutal wutal rek. bon est-ce que dëgg-dëgg président Ablaye Wade dafa moon yéene jox Karim Wade nguur gi. ah loolu nag moom xam naa ne loo koy laaj la man daal li ma xam daal <laughs> mooy li ma xam daal mooy perception bi ci nit ñi amoon. sénégalais yi bi ñu ci amoon mooy loolu loolu nag nekk na lu nga xam ne lu nu lu nu lu nu lu lu lu yàqal président Abdoulaye Wade la ensuite président Macky Sall man di ci vision vision vision kii vision euh, président Wade dugal loxo bu baax ci chantier yi nga xam ne moom la président Abdoulaye Wade doon liggéey sénégal yi ne ah kii daal moom bu ñu ko falee tamit li Ablaye Wade doon def dana ko continuer benn ñaareel bi aussi moom mu maye le territoire national à l'insu de tout le monde mais ñetteel bi mooy dafa jàng ci Idrissa sec parce que Idrissa Seck erreur bi mu defoon doon euh, wuy jiwaat Ablaye Wade bu ko Ablaye Wade woowee président Macky Sall dafa jàng ci moom ba ko Ablaye Wade woowee mu bañ. ah kon jot nañu def ay no non Ablaye Wade xam nga moom bête politique la Ablaye kay na koo woowaat. Hmm, pour yëpp. Euh, ah jéem na ko woowaat jéem a discuter waat ak moom jéem koo def comme defoon. Euh, Idi rek waaye fa fekk na président Sall si jàng na ci li daaloon Idi moom mu daal di xoolul rétroviseur bi. moom daa jubal ci yoonam rek ba yàlla may ko may ko ndam mais li neex. Euh, même bi ñu demee deuxième tour xam nga Wade moom c'est un éternel optimiste. Diouf wax naa léegi ne bi ñu demee deuxième tour moom xamoon na ne les carottes sont cuites mm. mais président Wade moom même bi ñu demee deuxième tour. day jàpp na ne non jàpp na ne moom gars yi daal moom bu ñu tegee ci balance bu ñu ko tegee ci balance teg ci balance Macky Sall moom euh, Sénégal yi waaw même bu fekkee ni ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon si ginnaaw ñëpp mm. euh, euh, am na ci ñu nga xam ne vraiment xamoon nañ ne mbir mi dem na. yow ci ñaan nga bokkoon. non man nag objectivement maa ngi doon xam nga man man man ci ñu optimiste laa bokkoon malheureusement <laughs> ndax. Euh, ba ñu ñëwee ñu ne deuxième tour moyen de campagne amul man amoon naa benn oto bu rafet dama ko jaay. Hmm. dem dugal ko ci deuxième tour bi. rafet ci njort. ah xaw ma xam par devoir la xaw ma par rafet njort mais en tout cas c' comme ça que ça s' est ça s' nga gëmoon ne da ngeen di ñëwaat. non dama gëm non non c' est pas pas gëmoon ne dañuy ñëwaat mais du fait que situation bi demee na nii moyen de campagne amul et que un combat il faut le mener jusqu'au bout. kay nga def ci li nga am lépp rek. tontoo ma de ndax gëmoon nga ne da ngeen di ñëwaat wala da nga ne rek naa jeexal xeex bi. na wax dëgg yàlla nag bi nga mujj wax moo gën a <laughs> moo gën a yoon nañ jeexal xeex bi ci ci ngor. waaw kay voilà jeexal xeex xeex bi ci ngor comme góor gi moom loolu la gëmoon. ah ñu <laughs> ñu ànd ak moom. ci <laughs> ñu ànd ceeg moom rek. mais xamoon naa ne booba vraiment béy. béy wéy na béy wéy na béy wéy na mbuus. naka ngeen dundee défaite bi 2012 metti woon na. on imagine. alors man maa ngi woon Mohamed Darou Moussi laay voté euh, donc euh, alors deuxième tour bi booru xam nga ay Makka ay Europe ak yooyu ñoom foofu la jant bi di gën njëkk a sowe waaw ban bi ma parce que man damay xëy suba dem vote ji wër bureau de vote yi su ma toogee ba midi mu wër bureau de vote yi su ma toogee ba war 4 heures cinq heures may wër bureau de vote yi pour un peu am les tendance parce que man tout le daar Darou si bu bureau yi tëjee dinaa xam ba xam fu tendance yi toll alors bi may wër ma gis affaire yi daal on léegi mooy tàggatéem booy effectivement nous on a gagné au premier et au deuxième tour à Darou mais gis naa ne vraiment affaire yi affaire yi affaire yi affaire yi dafa seere woon trop mais ensuite ma dégg ci rajo bi ñu naan euh, Arabie Saoudite <laughs> Italie di wax ay score Macky Sall nangam Macky Sall téeméer Ablaye Wade juróom fukk. ngeen tàmbalee ñàkk. de boobu kay lañ ne moom gas yi waaw boobu moom la ñu wax euh, la ñu wax gas yi mais li ñuy déglu gars yi koy déglu. alors ba 18 heures jot bon nous on avait peut-être euh, une légère avance mais xale yi commencé nañu xale yi commencé nañu ah yow. Euh, <laughs> fada bye bye bye bye. xale yére yi Fada bàyyi bàyyi suñu oto bu ñuul bi lundi lundi na ko déposé de lundi lundi lundi suñu oto bi ma ne mais xale yi daal alors dans une ambiance euh, très très très très amicale mais voilà donc euh, boobu euh, quand des gens ces ces gens-là n'avaient même pas voté hein. mais mooy ñi nga xam ne rek ñoom dañuy déglu xamoon nañ ne daal mais xam nga boo nekkee xale rek moom la nga naan li fi ne daal na fi jóg voilà donc euh, euh, boobu lañ xam ne affaire bi jeex na ci guddi gi ma jokkoo ak président Wade mu woo ma waaw nu mu demee foofu man nga ah fii de gagné nañ mais euh, vraiment on a le résultat a baissé man ma ah man nga ah waaw le résultat a baissé de ma ne ah baax na raccroché boobu il était en train de faire le tour de ses lieutenants boobu ban heure a jotoon. boobu ay vingt heures vingt en train de fair le tour de Célena mais lui quand xam naa ne quand il a fini de faire le tour il a compris et il a commencé à réaliser que ñàkk na ñàkk na ñàkk na élection yi et que très rapidement moi je n'étais pas là parce que maa ngi woon Darou Moussi dama toog bu booru ay 23h minuit on m'a appelé ne ma il faut rappliquer sur Dakar. oui ma xam ne daal parce que man kenn mësuma wax kenn mësuma wone ma ñibbisi. ku la woo. <laughs> gaa yi rek gaa yi ma woo dégg gaa <laughs> yi ma woo ne ma ñibbisi alors te man man dama daan voté dimanche euh, c'est vrai que nag quand même léeg-léeg ma ñibbisi ci guddi gi parce que j'avais des responsabilités euh, nationales. Euh, surtout quand je dirigeais la commission électorale du la commission des élections du parti wala boog quand j'étais euh, porte-parole du parti donc dañ ma doon wax euh, damay kii bu ma votee rek su ma xamee résultat yi rek jaar euh, Kébémer feetu jaar ndand continuer mais bi moom bañ ma wooyee nag ma ne ah kon gars yi xam nañ li ma xamul mais bon xamoon naa déjà que affaire bi jeex na. ngeen ñëw Dakar lu fi xew. ah bi ñëwee Dakar kay ambiance su. ambiance su xam nga rek nit bu nit bu ñàkkee élection yu tol noonu avis yi day am avis yu partagé no no non non waaw affaire dañ ko sàcc dañ ko def nii gouvernement bi fii nangam nangam bu def lii mais nu Wade lui c'est c'est c'est un grand monsieur c'est un grand monsieur il a dit qu'il a perdu li waroon def Sénégal def na ko il va appeler Macky pour le féliciter. balaa mu koy woo daje na ak mais bien sûr. en tout cas bokk naa ci ñi nga xam ne. wax na ak euh, wax na ak euh, ak ak ak ñoom. ngeen yëg bi mu toogee ak yéen ne leen xam na ne ñàkk na day woo Macky Sall félicité ko. bon oh, le président Wade c'est un grand monsieur. lui waaw laa wax ah bon ñun. newoon ak moom ñun ñun non non mais de toute façon xamoon nañ ne ñàkk nañ man j'étais man man je suis un démocrate. Euh, mosuma bokk ci ñuy xalaat quoi que ce soit lu dul ñàkk nañu. nañu xam ne ñàkk nañu nañ dem waajaat waajalaat suñu parti nañ dem defaraat suñu parti nañ dem euh, tëggaat ko euh, pour xool nan lañ mën a def ba dellu si alors d'ailleurs quelques jours après avant muy euh, muy def passation de service dajewaat nañu encore palais groupe restreint matuñu woon fukki nit mu xamal ni moom dafay bàyyi day bàyyi la tête du parti ngeen xool ci seen biir euh, ku ngeen di désigner en attendant ngeen dem congrès xool kan la parti bi di di tànn mais loolu ba mu ko waxee ci ginnaaw su bëgg da ñoo woowaat ne ah non gars yi nañ bu ma bàyyee parti bi tas waaw am na daal waaju ko jege lool moo dugal loolu ci bopp bi. waaju kan bu ma bàyyee ñu ma nee nañ ma daal bu ma bàyyee parti bi tas kon nag dama leen koy téel pour maintenir les troupes bon mais daañu dem. benn benn benn congrès extraordinaire bu ko defee euh, ma désigner un coordinateur bu may seconder dans les tâches alors noonu ci lañ demee congrès CICES mu désigner Omar Sarr comme coordonnateur du parti. bi wàdd ne day bàyyi ngeen tànn gisoo woon sa bopp ci bopp PDS. ah mais bien sûr loolu moo loolu man kay je suis un enfant euh, légitime. Hmm. du du parti. Euh, moo mon, mon rêve kañ a été toujours un jour d'être à la tête du PDS. wuutu Ablaye Wade. du PDS xam nga Ablaye kenn mënu ko wuutu. parce que Ablaye Wade moo ma ëpp xam moo ma mag moo ëpp expérience non c'était pas pour wuutu. ok Ablaye mais je pensais que euh, ñi nekk si langue politique yi war ma mën a diiranteeg ñoom mbagg à la tête d'une grosse formation politique comme le PDS. malheureusement Dieu en a voulu. autrement. war nañoo dugg université wax ci politique duñu fa yàgg fi ne li ñu dese matul ñaar fukki simili moo tax may may baral euh, bala ñu yegg ci élection 2019 dañuy taxaw 2016 ndax foofa lu rey dafa faa xew 2016 euh, nga génn ci parti démocratique sénégalais. Euh, ah waaw d' accord dañ la génne <laughs> dañ la génne d' accord alors bala ñu yegg ci 2019 2016 nga tënkal ñu rek événement yooyu nga xam ni moo xew yépp daje. non bi ñu paree 2012. Euh, élection présidentielle jeex ñu dem élection législative 2012 boobu ma nekkoon directeur général des élections du PDS donc man ak Omar Sarr ñoo doon defar listu député yi. ñu def liste député yi euh, ba mu yegg euh, ma nekkoon neuvième sur la liste nationale position boobu sax pour man dama doon sacrifié bu quoi parce que <laughs> ah warul di euh, parce que. yéen ngi doog a ñàkk. non doon doog a ñàkk et puis ni ma ni ma ne woon lëjj ci élection yi ak ci organisation bi mënoon na maa xeex pour nekk troisième sur la liste wala cinquième sur la liste bon mais xam nga président Wade rek. jox ay égard euh, suma suma mag ñi euh, intercalé leen ci ci biir euh, ci biir list bi ba ma nekk neuvième mais nag yàlla moom moo xam man maa nekkoon ki mujj ci ñu jàll ci liste nationale bi waaw maanaam man damaa jàll rek affaire bi affaire bi jeex li ci des ñu am ko ci Touba ci liste départementale yi ñëw assemblée nationale mais yàlla wa yàlla président Wade désigné ma comme président groupe parlementaire proposé ma comme député yi bi ñu ñëwee tasante Omar Sarr wax leen ko ñu ne waaw kon euh, baax na donc ma nekk président groupe parlementaire ñu doxal 2012 deux mille 2015 ba 2016 benn problème amul sauf que comme man ci ñu yàgg gëm ne dañoo war a organiser waat parti bi dañ ko war a defaraat dañu war a dem congrès désigner de nouvelles instances de nouveaux responsables musuma quitté def bu mu ko déggee ci président Abdoulaye Wade ba léegi à chaque fois bu ma am occasion rappelé naa ko président waa kañ la ñuy congrès rappelé naa ko euh, Sénégal fekk naa ko Versailles rappelé ko à deux ou trois reprises la mu mujj wax mooy euh, bon Karim Wade mu ngi ci ay problème euh, man ko justement c'est parce que Karim Wade mu ngi ci ay problème que dañu war a defaraat parti bi jël six mois huit mois defaraat parti bi pour gën ko mën a taxawal. pour mu gën a mën a. Euh, lijjanti mbirum mbirum Karim Wade donc euh, ma ne ko raison supplémentaire la mu ne waaw mais bàyyi bàyyi leen bañ def élection locale yi ba pare comme ça ma xool responsable bu nekk la muy peese ci goxam ñu dem élection locale man j'étais tête de liste départementale du PDS ak Kébémer muy ak ñeneen ñu dem je crois que man maa gagné woon département Kébémer comme tête de liste. ak Aïda Mbodj au niveau de de Bambey. Euh, Oumar Sarr gagné mairie mairie Dagana ak euh, yeneen maire yu ñu am dans la banlieue Pikine feneen ak feneen. vraiment on avait un excellent un excellent en tout cas la la euh, mel na ne booba noonu ñu ngi doon commencé di reprendre du poil de la de la la de la bête ñu doxale noonu ma fekk ko Versailles après ma ne ko ah, léegi di dem nañu élection locale ba pare ah non non non mais vraiment vous les jeunes vous êtes un peu pressés affaire yi <laughs> ma ne ah ay bi daal. booba yow loo njort. ah non li ma njort rek mooy naru ñu du ñu organiser parti boobu boobu laa jàpp laa xam ne du ñu organiser parti boobu donc bi ñu waxee wax wax vraiment ci biir ma gisanteeg moom waxtaan waxtaan mais ma xam ne ma ne nag lii nag maintenant il faut il faut se battre. loolu moo indi avec nos amis le fameux mémorandum de 2016 ñu bind suñu mémorandum comme wax nañ ci suuf kenn déggoon ñu bind suñu mémorandum euh, euh, woote conférence de presse wax ci kaw ah bu ñu waxee ci kaw nag yu fi yëngatu na lool euh, ça n'a pas été facile ñëwoo ñu kër président Ablaye Wade une rencontre houleuse dara jógewu fa ci gàttal ñu jóge fa war a dem ci octobre mille quinze non octobre 2016 ñu war a dem renouvellement bureau assemblée nationale comme maa nekkoon président groupe bi ñu dem xam naa ne comme yëkkati naa mémorandum ak i waxam ak i coow ñu ne kii moom il est incontrôlable nañ ko jéem nañ ko dindi ci boppu groupe parlementaire bi loolu na moo di woon coow la. ndax da ngaa lànkoon ni doo leen ko jox. ah loolu tax ma jox. comme xeexu politique la kay ñi ñi ñi ñi ñi ñi koy ñi koy xëccoog man doon ñu ma cee yey man kañ damaa lànkan du ma leen ko jox. ba pare yow président Macky Sall exemple bi ñu koy bundu xataal mu dafa génn waaye yow dañu la doon dégg nga ni je je mène le combat dans le parti bougé wu fii laa koy xeexee. waaw oh, kenn ku nekk ak sa sa sa stratégie président Macky bi mu koy def booba nekkoon na déjà premier ministre. non nekkoon déjà ministre d' ministre de l' déjà premier ministre nekkoon na président assemblée nationale. Ah. donc bokkul woon bokkuñu woon euh, statut euh, en ce moment précis donc man euh, bi muy bi muy bi ñuy xeex loolu et ñun vraiment nous étions animés de de bonnes intentions ñun mosu ñu woon xalaat génn PDS. est-ce que tamit du da nga doon bañ Karim jóge fee rek ñëw fekk leen ngeen togg ba mu baax. en tout cas ñun mu yekk lekk. en tout cas ñun ñun ñun mosu suñu xalaat génn PDS c'est-à-dire bi ñuy def affaire mémorandum suñu xel musul nekk ci benn bis dañu toog ba ñuy créer parti dañuy jàppoon rek ne. on trouvera une solution dinañu mujjee nangu li ngeen bëgg on trouvera une solution bon Karim peut rester le candidat un Diagne Fada peut être le secrétaire général du parti et cetera. Karim moo nekkoon seen problème. kan Karim. non man waxuma ay man xam nga man du ma du ma personnaliser benn débat man kenn nekkul sama problème li ma xam daal mooy li ñu bëggoon mu ñun xam nañ ko mooy parti bi nañ ko. réformer nañ ko yeesalaat nañu yeesalaat banqaas yi. nañu nañu renouveler waat euh, instance yi nañu tëggaat programme fondamental bi ah ba mu dëppook euh, jamono parce que programme fondamental bu PDS 1976 ba léegi moo fi nekk ñun yooyu la ñu doon revendiquer donc ñu suñu revendication était des revendications saines mais gars yi ñoo dem na ko ci biir dugal ci politique. ñu ne nag léegi comme kii moom léegi mu ngi dëgëranteeg bopp nangam nañu nangu groupe bi nangu groupe bi nag foofu la coow li takkarnaase ma bañ. appui wu ci règlement intérieur parce que député bi bu ñu ko falee rek nekkatul député parti député réew mi la boo franchiree portail assemblée nationale rek bokkutoo ci benn parti réew ma nga fa représenté te assemblée nationale reconnaître keneen ko dul président groupe parlementaire c'est-à-dire c'est pas parce que chef de parti nga que mën ngaa benn président assemblée nationale ne ko damaa bëgg a dàq président groupe parlementaire déedéet député yi ñoom ñoo mën a tasante ñun dàq nañu président groupe parlementaire alors te ko booba ñoom amuñu woon majorité bi ñu ëppoon ci député yi booba dañu d'accordoon pour que président Modou Diagne Fada des règlement intérieur bi may ma ma apporter ay modification ma bind lettre bi nga xam ne moo war a jëm ci président assemblée man foofu laa mooy rek ñu ni ma bàyyil may leen du ma ba ba ñu ñëwee assemblée national nu daanu mu jëlaat groupe bi ci le 15 octobre le 16 ñu woote secrétariat national extraordinaire avant boobu woote nañ commission discipline

ñu ñu ñu bañ ma jaarale lettre bi ci mairie ba ñu jox ko coordonnateur Pérez nangu ko recevoir ma toog juróom benn weer yu nga xam ne maa ngi ci loolu dàq nañ la dàq ñu ma dàq nañ la dàq ñu ma ba élection législative yi des tuuti ma ne nag caaxaan faaxe fii boo de boo demulul sa bopp élection législative dina ñëw <laughs> gars yi def seen i yow ak say du ngeen ci feeñ. ngeen toog nag euh, la daal def conférence bi xaw ma euh, lu ñu ci waxoonati dëkk xaw ma lan dëkk. de guerre lasse, le cœur meurtri, je me résigne hein, à accepter mon exclusion du du du PDS. leer na alors ñu jeexal très rapidement ak élection diggante bi euh, yeesal nga fi. ba samp sa bànqaas bokk ci boobu la élection jàppale président Macky Sall mu faluwaat ñu tënk ko doog a dugg université wax ci wàllu politique jeexal. waa élection boobu président Macky Sall euh, yor na déjà réew mi benn mandat. ñu gis ne def na fi liggéey bu am solo liggéey bu baax liggéey bu dëppoo ak ñun suñu vision ci wàllu Sénégal diggante 2012 ba 2019 ay nit doon nañ dox pour que président Macky Sall dugal ma ci gouvernement am musuma ko nangu waaw parce que dama yàgg wax ne du ma transhumé parce que pour man transhumé mooy man falu mu Macky Sall 2012. diggante 2012 ak 2019 du ma fi jël benn cër bu ma jox 2019 jub suñu parti ñu natte suñu ko fekk dem nañu élection 2017 am benn député jël septième sur 47 listes pour ñu performance la woon ci parti bu nga xam ne amagul woon récépissé demoon ci élection yi moom dong ak élection yu jaxasoo yi nga xam ne 47 listes amoon suñu mbokk yi kenn xamul. nooy def ba fal ci euh, ba ba tànnali si ñu am septième on était septième Sonko mi tey était sixième ñun ñu nekk septième te Sonko dafa àndoon ak ay parti ki mouvement donc ñu ne def nañ score baax waaye nag jotagul pour ñu samp suñu ndënd kon il ñu jàppale benn candidat ñu xool candidat yi gis ne daal président Macky Sall moo nu ci doy ñu jël suñu courage à deux bañ koy jàppale yombul de ndax bañ koy jàppale xamuñu woon ba xam dana amaat deuxième mandat ensuite bañ koy jàppale euh, ñu baree bari tey ñëw nañ suñu ginnaaw di ko jàppale ñemewuñ ko woon a jàppale en fait ñun ñoo bàddi baaraas bi baaraas bu mujj bi ñun ñoo ko bàddi ñun ñoo njëkk a sóobu en 2018 ne dañuy jàppale euh, président Macky Sall ginnaaw bi nag ñu bari toppaat nañ suñu ginnaaw ñëw di ko di ko di ko jàppale si donc ñun on a on a on a c'est un allié donc euh, dañu bàyyi ba élection jub ñu wut un allié muy le président Macky Sall ñu ànd ak moom ci élection yi euh, jàppale ko département de Kébémer jàppale ko sur le plan national ak suñu parti parce que parti bi élection législative déjà wane woon na ne cinq département yi foofu dem euh, euh, am nañ fa ay ndaw foofa dem am nañ fa ay ay ay militants diaspora bi ci circonscription boo fi dem am nañ fa ay ay ay ay militants élection législative yi ma lay wax. am na ci ay communes yu nga xam ne tey bu fekkente ne booba élection locale kon ñoo ñoo ko doon gagné commune bu mel ne Darou Moussi commune bu mel ne Ndande commune bu mel ne Saara Yoba Diega fii Boubacar Diallo mi patron wu ndaw si dëkk commune bu mel ne Xosanto ak commune yu bare bare bari yu nekk biir Sénégal yu nga xam ne déjà euh, élection législative wane woon donc ñoom représentativité walla ak représentation alors ñu ñëw jàppale président Macky bokk ci ci ñu ko fal ànd ak moom ci naaj bi ànd ak moom ci suuf si gëm programme am gëm ne moo gën ci Sénégal euh, yàlla may ko ndam. mu def ni Wade defoon 2007 mu dënk ñu mu def ni. ni Wade defoon waaw euh, ñëw kiiwaat euh, dénk ma Sonacos waaw may may liggéeyal Sénégal. <laughs> yéen a ngi teewlu dem ak tey ci réew mi FM ñuy waxtaanee ñeenti élection présidentielle yi mujj dalal ci Modou Diagne Fada njiital LDR Yeesal nekk itam directeur général bu sonakos nekkoon na njiital mel ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ay bés ñu génn université ak politique euh, ñu ngi ko doon waxtaanee lu bari ci lu gàtt itam ndax waxtu yu jeex na juróom-ñetti simili mbaa juróom-ñaar moo nu dese politique ak université lu leen boole ak ndax ànd nañu. politique université nag yàgg nañu yàgg nañu lool laata sax suñu génération foo tudde université tudd politique. les avait parce que c'est c'est normal politique euh, université ñu fay nekk mooy xale yi nga xam ne ñoo gën a jàng. war a jiite xale yi war a jiite ëllëg xale yi gën nga xam ne ñoo gën a conscient fa la ñuy nekk donc ñoo ñooy gën a sensible ci problème yi nga xam ne ñoom la société bi di jànkonteel ñooy gën a yeewu. ndax ñeneen ñi bu dee mag ñi wala leneen dañ naan la yàlla baax na yàlla dana defar lépp yàlla nang mais ñee nag ay gone lañu dañuy xam lu xew ci àdduna bi xam lu xew ci ci ci monde bi donc ñooñu dañuy euh, dañuy euh, dañuy yeewu donc moo tax politique ak àdduna ak université avant 68 après 68 boo ko xoolee dañoo mës fii ci ndakaaru nag rawatina tey tey yaakaar naa am nañ cinq présidents wala six yu nga xam ne seen i seen seen i seen njàng defee nañ ko fii ki ci mujj mooy suñu xarit Mohamed Bazoum suñu suñu mag la euh, suñu suñu mag la moo ñu jiitu université mais ñoom bañ fi nekkee jamonoy Mohamed Bazoum jamonoy Youssou Diallo jamonoy ñeneen ak ñeneen ak ñeneen booba ay union national moo fi nekkoon maanaam boobu sax moo la gënoon garaaw parce que ah. boobu union national moom da nga naan man union nationale ñëpp xam nañ ne LDMPT lay wuyoo hmm. bii ànd jëf lay wuyoo bii nangam lay wuyoo boobu jamono union nationale ñoo naan jël fii jël fii ñu boole def mouvement étudiant ñun ñoo fa génne union nationale ñun ñoo ne politique nag mënul duggee noonu ci université maanaam kenn mënul dem ci banxaasu banxaas yi nga xam ne ñooy représenté étudiants yi nga fay ñëw si turu parti wala ci turu kuréel bu nga xam dafa am connotation politique ñu daaneel loolu léegi nag ne délégué yi nañuy génne ci campus social bi maanaam délégué de couloir yi ci pavillon yi nañuy fal seeni délégué délégué yooyu def assemblée générale wut juróom ñu ñëw CED. faculté yi na faculté bu nekk jóge ci amphithéâtre yi fal juróomi nit ñu ñëw CED faculté bu nekk def ko ak commission sociale ñoo ñu ñoo doon coordination des étudiants de Dakar nga xam ne 87 88 la la la judd ba 93 94 moom tamit mu mu mu mu mu génn mu génn àdduna donc mais du tee même bi ñu nañ jaar ci faculté yi. comme parti yi dañoo organiser wu te la masse de l'est pas militant parti comme ñoom ñoo gën a engagé ñoom ñoo daan fexe ba gën nekk délégué. donc yóbbaale politique. ah waaw donc bu ñu baax dañu yóbbaale politique dañuy yóbbaale dañuy yóbbaale politique loolu moo tax CED aussi ña fa nekkoon tuuti rek ñoo ci amuloon parti politique mais ñi ci des yëpp parti politique loolu. alors ñun nag suñu particularité mooy mouvement étudiant souvent ay parti de gauche ñoo ko daan diriger mais ci ñun nag. ci la loolu daje à moment donné on a dit comme libéraux yi sont plus nombreux que les partis de gauche ils doivent être maintenant mieux organisés ñoom tamit pour s'accaparer du mouvement étudiant donc les gens on, on s'est organisé et finalement la CED était devenue une structure composée majoritairement par des étudiants PDS donc à un moment donné euh, de la CED de ma génération maa nekkoon parce que en ce moment-là maa doon jiite section des étudiants PDS d'abord avant section étudiants PDS ci déwén si ñu créé université de euh, Saint-Louis commencé exister ñu créé foofu benn section loolu moo di mel mouvement ak élèves yi nga xam ne ñoo nekkoon Sénégal leen di mel donc mooy section étudiant PDS section étudiant euh, PDS bu Dakar PDS bu Saint-Louis plus les élèves ñoo créé mail le premier congrès du MEL s'est tenu en 93 et je fus le premier secrétaire général du MEL donc mail amoon na ay étudiants PDS amoon na CED nga xam ne officiellement kenn ñu faa wax politique mais ña fa nekkoon nag ay ay ay politique la ñu donc loolu yàgg na ci yàgg na ci mouvement étudiant mais nag suñu jamono différence bi rek mooy li ëppoon débat d'idées la daan nekk mënoon dañoo toog autour d'une table benn camarade indi benn projet de déclaration liir ko ñu nekk ci foofu virgule point signification nangam di discuter ba fajar bala ñuy tomber d'accord wala ñu ñëw lu ñu war a def suba dañuy grève dañuy déclencher duñu déclencher nekk fa discuter ba fajar manipulation tey daf ci bari lool euh, ñenn ñi tam tàmbali xëy na di ci dugal lu ci bokkut ba yëf yi tàmbalee ñaaw andi tiitaange ndax fitna mu ngi tàmbalee yeewu euh, leader yi bu nu fa demee ak euh, yu ni mel est-ce que tey yaakaaroon ni war nañu ko xoolaat li ma leen di dénk gis nga étudiant daal fañ koy tàggee mooy ci boppam ci xelam ci argument yu rafet mais étudiant moom kenn du ko tagg ci euh, doole kurpeñam wala ay ngànnaay euh, ay ngànnaay alors ñoom nañu xam ne comme nun ñu nekk woon étudiant te tey ñu nekk ci beneen langue bi suba yi tamit ñoo noonu lay demee kon lu ci nit ñi def rek ci sóoraale ne euh, sóoraale askan bi sóoraale ci réew bi donc nañuy nañuy nañuy waxtaan maanaam man d'accord naa contradiction di am nañu toog assemblée générale 9h ba 18h 9h du matin ba 18h du soir wala 21h ba fajar di waxante di discuter di théorie mais nag bu yet jóg bu fetal jóg bu paaka jóg. démocratie lañ nekk ñi ëpp lu ñu wax ñu doxal loolu. maintenant nag ci la daq politique wala ki la dàq syndicalisme moom mooy góorgóorlu ba nga xam ne la mu bëgg. dana fexe ba majorité ba jëm fa ñu noonu lañ daan def de ñun dañ daan ñëw wut suñu rapporteur. wut suñu président de séance wut suñu rapporteur waaye daal daañu lijjanti daal ba nga xam ne bu fekkee dañu bëgg a dem gerew ñu ëpp daañu ne dañuy dem gerew bu ñu bëgg lu dem gerew ñëpp duñ dem duñ dem duñ dem gerew waaye dañ ko daan forme yi dañ ko daan respecté dañu jox euh, étudiants yëpp ñu ñu wax jërëjëf Modou Diagne Fada wax nga ñu lu bari ci euh, élection yi ñu ngi lay sant di la gërëm xëy na génération bu bees bi euh, ñu bari ñu fekkeewul woon yooyu la élection ak euh, peut lu ko jiitu am na lu ñu ci jàng en tout cas mën nañu mbégte dalal la pour une première fois ci Demb ak Tay bàyyi la nga tàggatoo ci lu gàtt. waa di la gërëm yow tamit di la sant di sant auditeur Rewmi FM bon di am kontaan pour la première fois bokk ci émission démb ak euh, tey et j'espère que daañu amaat euh, occasion ci yeneen thème dellusiwaat ci émission démb ak tey notamment sur l'implication des mouvements de jeunesse politique de façon générale dans la première alternance démocratique ak yeneen facette euh, yi nga xam ne tamit xañ na mu mën a intéressé ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk ndaw en tout cas maa ngi lay ndokkeel Fatou Thiam Ngom yow ak say auditeurs yi ñu doon déglu yëpp lépp lu ñu fi wax te mu nekk euh, njëriñu askan bi yàlla nañ ko ñun ñëpp yàlla nañ ko bokk eh, lépp lu ñu fi wax te mu nekk njuum te ñu ngi koy jégalu. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax Modou Diagne Fada nekk euh, njiital LDR Yeesal jiite itam euh, Sonacos ñu am mbégte lool tey dalal ko ci Demb ak tey amoon mbégte itam ànd ceeg yéen di leen gërëm gërëm jaawu jàllo mi fare woon ci jàppandal gi dig leen dajee beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm